Bye. 你妈叫我干 am nañ ci kontaan te ndax ne moom bi ñuy ñëw fii yar ak nañ àndal ñun amuñu leneen lu dul alxuraan amuñu leneen lu dul diin waaw na nag nit moom la waxee ne la nii te li nga def il faut da ngay teelu rek ndax ñoom waxtaan nañ tey bu pare ñaa pare danañ koy renvoyé ba le 14 ba le le ah ñu muñal leen ba le 14 moom li nekkoon rek lañ nekk xëy na nag buñ defee xamaguñu waaw buñ defee xamuñu buñ defut waxaguñu waaye ñun moom lislaam yar tëgal nañu